ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ني سانت بروم بي تبارك وتعالى تي خيولم يو بري تي فسانتيكو ني كوكاي سانت سانت غو تولوك ماغايام سانت غو ييو اك كاوي موم بروم بي سبحانه وتعالى دي نيان صلاه والسلام mu koy dotti ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo kay àndandoom ak njabootam ak mboole mu jullit yarhamukallah ñu toll ci jamono joo xam ni jamonoy wàccaay la jamonoy wàccaayu dalal ab gan yarhamukallah wàccaayu dalal ab gan goo xam ni ñi ko yàlla wàccee ci ñoom digal leen ñu dalal ko digal leen ñu nekk ak moom nekkin wu rafet ngir mu mën leen jëriñ ci la indi gan googu sunu borom ñenn rek la ko wàccee ci ñoom mooy ñi nga xam ni nee nanu gëm nanu yàlla te muy dëgg ci ñoom sunu borom tabaraka wa taala gan gi kenn mënu ko berndeel berndeel gu yàlla di gërëm lu dul ni da bokk ci daairatul iman comme nin ko waxee woon àjjuma ji weesu sunu boroom nee na yaa ayyuha allazina amanu mu soog a wax ñamu a lam leen bëgga wax ni su ñëwee nan ko tatagal moo tax mu ne kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaquun mbokk julli di ñu xam ni ku ne si ñun war naa taxaw laaj wala mboolow jullit mi war nañoo taxaw ne kayfa nastaiddu li ramadan nan lañu waajalee weeru koor ndax weeru koor ku ne xam na ni loo waajalul bu ñëwee taxawaayam day manki fokk ñu waajal ko fokk ñu préparé ko ndéem yëfu caaxaan sax di ay sport bala nit kee dem ca match ba da ngay gis mu def ay séance d'entraînement yu bari yooyu ay xeetu wàccaay yu bari te yooya mbiru aduna euh, dong la waxuma laa nag loo xam ni dafay ñëw di la baaxalal aduna di la baaxalal àllaaxira di la jural ab ngërëm di la ak sànj akum meru borom bi subhanahu wa taala fekkee weeru koor mbir mu rëy rëy la boo xam ni ki ko fekkee ak ki ko séentoo fekkee war na ko waajal bu baax a baax a baax balde balde balde ellee damal ngal uddi mel na ni weer wi daanaka li ci des ay fan yu néew la booye nga ni ayu bés la booye nga ni ayu bés la boo xam ni dunu ko sunu génnee ayu bés bii rek dugg ci weeru koor yàlla nañu yàlla sunu borom wërsëgal ñu euh, dugg ci ak jàmm weer la woo xam ni yàlla def ci jagleel ay xéewal yu bari yu nit ki mën a màng bokk na ci weeru naafila la ñeel ab jullit weer la woo xam ni dañ ci fulal jaam bi ay jëfam weer la woo xam ni dañ ci faral nit ki ay bakkaaram ak ay njuumteem ñu bari ci nit ñi dañoo bokk ci ñi nga xam ni dañoo perte ci fekkee weeru koor ndax sabab yu bari sabab yi mooy ñu bari euh, weeru koor buy ñëw dañuy mel ni lay ñëw mbugal la lay ñëw dafa dafa nar a dox seen diggante <coughs> àdduna <coughs> waaye lay ñëw nekkul leen di jural ab yiw ñu ne xamal ni yow jaamu yàlla bi boo amee càmm borom bi subhaanahu wa taala di nga xam ni nii kenn mënta jëriñoo ci weeru koor lu dul daf koo waajal waajal ko bu baax comme ni ko mag ñu baax ñi doon waajale bu weeru koor jeexoon juróom benn weeru yàlla dañuy ñaan yàlla yàlla na leen yàlla nangul weeru koor yeneen juróom weer ñu ñaan yàlla yàlla leen yàlla wërsëgalaat ñu fekkewaat beneen weeru koor kon ñoom ñi ngi ko doon waajal bu baax juróom benn weer avant ñi ngi ko doon waajale ay kooru gàtt nga ñi ngi ko doon waajalee li leen koor jàngaloon ñu fexe ba koo ceeg lu bari ñooña su weeru koor ñëwee du ñu am coono comme niñ ko waxee tàggatu dafa baax ci bépp mbir booy dëgmal boo ci tàggatoo su ñëwee du metti ci yow waaye boo tàmmee añ reer ndékki ndékki yu bari fukki weer ak benn weeru koor ñëw ne jameet ci yow boo sàgganee ah, koor gi dana metti lool ci yow ndax fukki weer ak benn yow wooralul yalla ben kooru gatt nga amaana sax amoon ngay bor yo xamni xeyna top na woko koku su weeru koor ñëwee ci yow ñak ndékki ñak añ day metti lol ci yow waxuma la nak yeneen yi nga xamni mo ci teggu tegu ci sa làmmiñ ci say nopp ci sa mbolé mi cër yi nga xamni ñomit dañu wara wor woor koor occasion la ci ab julit mu nek occasion bo xamni da ci màng ay tuyaaba yu baree bari mooy fàggu ci ay tuyaaba ndax tuyaabay weeru koor dafa gën a bari tuyaaba yooyu amee ci yeneen weer yu dul weeru koor weeru koor occasion la ngir texe ci jaamu yàlla yi ngay def bu ci nekk dalay jural texe bokk na ci guddi yi ndax julli guddi walla jaamu yàlla guddi ci weeru koor dafay jural jaam bi ñu laabal ab xolam dindil ko lépp loo xam ni xol ba amoon na ko ci ay tilim boole ko ci ñi gën a baax gën a jege borom bi subhanahu wa ci fi nga xam ne mooy malail ala bokk na ci gàttal ci weeru koor ñu xam ne occasion la ngir nit ki mën a màng bépp yiw waaye day def nit kii ak diggante ak yu ñaaw weeru koor day dox sa digganteek yooyu ndax weeru koor yi mu ñëw di tere yépp ak di ci tàggat mooy lu ñu jegeel borom bi di ñu seytaane mel na ni soññe ci liggéey jumaa ji jot na ni nu ko waxee woon ayu bés bi paase ñu yéene woon liggéey dimaas boobu yàlla nattuñu am gan am sunu mbokk julit bo xamni ni ci mbooloo la bok yalla jele ko fi ci samedi bi dimanche bi lañ ko don denc muy Souleymane si ñi ngi sakku ci mbolam mi ñaanal ko yalla yalla na ko yalla yërëm na sunu borom tabata taala xare aljanna mo ak mi julit ye ya ko fek ndax it samedi bi am nañ fi ñaari wàññeeku ba Ndiaye di kenn ci quartier bi ak euh, sunu doomu Papa Ibrahim si di aissata si ñu gën ko xam ci aissata gewel momit it na fi léegi léegi sunu jigéenu sunu papa der moom it fii ci ay numaan muy yaayu ñoom jóge ñoom moom it génn na fi àdduna bi sànq ñu ngi koy ñaanal yàlla di ñaanal ñi jiitu ñëpp yàlla na sunu borom yërëm leen te jéggal leen yàlla sunu borom xare leen aljanna musal leen ci mbugalu bàmmeel ak ci mbugalu safara lu yomb yàlla la yàlla na ko yàlla def ñun ñu fi des yàlla saxal ñu ci yoonu siraatal mustaqim may ñu fekkee weer wi ñu dëgmal te lu luñ ci màng yàlla ful nangu ko ndax jullit bi xam na ni moom mi ngi wàcc wàccaayu weeru koor weer la woo xam ni niñ ko war a dundalee mooy ay taxawaay taxawaayu julli guddi ak bëccëg di ci jàng alquran di ci jege jegelu borom bi subhaanahu ci mboole mu jëf yoo xam ni yàlla nee na ku ko def di ma jege fexe ba yooyu jëf mu xam ni da koy yëkkati ci mu gën a am daraja ju kawe waaye gën a jege borom bi subhanahu wa taala mbir yi nga xam ni fokk mu jiitu weeru koor loola jullit bi da koy bàyyi xel bu baax bokk na ca la ca jiitu mooy taw tawbatan nasuuxa fexe ba tuub tuub bu wér balaa ngay dugg ci weeru koor ndax sunu borom bépp julit boo xam ni dafa fees dell ci ay bàkkaar ay jëfam dafa ñaaw kooku du yomb yàlla nangul ko ab jëfam du yomb yàlla nangul ko ab ñaanam du yomb yàlla boole ko ci ñuy yëkkatil daraja waaye du yomb sax ci ñuy am cawarte ngir dundal weeru koor moo tax weeru koor a ngi ñëw war nañ koy waajalee lu bari ci tuub suñuy lu bari ci di jéggalu di def istighfar di tuub di delu ci borom bi subhanahu wa taala ndax ay jaam yu manke lañu suñu balé ñu am xol bu nango jaamu yalla am ay cër yu sawar amit occasion bo xam luñu lu jamu yalla yalla nangu mota ben way dafa ñew ci hasanul basri rahimahullahu taala ne ko man de ah dama am jafe-jafe lol ci samay julli guddi guddi gi léeg-léeg su may tëdd damay bëgg waajal yépp teg sama jàppukaay lépp waaye daal guddi gi dana jeex te duma jóg sax jullil yàlla ñaari ràkk mu ne ko damaa bëggoon yow boroom xam-xam bi boo ci amee daal loo ma ci mën a laaye biir nga laaye ma ci biir boroom xam-xam bi ne ko ah loola du lenn lu dul xayyadaka zunubak say bàkkaar ñoo la tënk say bakar ñoo la jeng ba jog guddi dula yomb lol kon nak jéggalul borom bi subhanahu wa taala nga tuub say bakar amar jog guddi du yomb ci mom jog julli sa safa witri ci digu guddi du yomb ci yow jog julli yalla ñaari rakka du yomb ci yow muy waxtu wo xamni bu permanent la sunu borom subhanahu wa taala ci ñettelu xaju guddi bi muy sulusul layl al akhir yalla day wacc asman aduna bi nan kumay ñaan ma may la ku may woo ma wuyu la kan moo may jéggalul ma jéggal xoolal occasion boobu te loolu guddi yëpp la amul benn guddi du samedi du dimanche guddi yëpp la lu tere nit ñi jóg mën naa nekk lu xaw a mel ni lu boroom xam-xam bii wax ki ñëwoon doon sàkku si mu laye ko biir lu mu ko wax xayyadaka zunubak say bàkkaar ñoo la jéng say bàkkaar ñoo la tënk budul sa bàkkaar it sa programme beneen boo jël la teg ko ci kanamu loolu xoolal ku ñu waxoon rek tey ci ñi nga xam ni yaakamti ngaa dajeek ñoom ne leen kii kat bés bu nekk 4 du matin wala 2 heures 3 heures demi jëm 5 heures fii lay jaar defe naa ni booy wuute du bari de waaye ku day ni borom bi subhanahu wa taala wàcc ci asamaanu àdduna bi di xaar jaamam yi nga xam ni aajowoo nañ ko woo ci turam yu kawe yi melokaanam yu rafet yi turam yu rafet ak melokaanam yu kawe yi aajo woon nañ koy ñaan mu jox leen lam leen di jox aajo woon nañ mu jéggal leen seen bàkkaar waxtu woowu moo dàq ci waxtu woo xam ne yàlla da ciy nangu ab ñaan ñu góorgóorlu ci bu baax rawatina ci biir weeru koor ndax weeru bu jotee sama mbokk njaay nii dana jafe lool ku ci karmat ñépp ay xëdd waxtu xëdd moom bu jotee ñépp xëdd Lalu tagatu la ni ngay tagato di jog di xed non nga wara tagato di jog, di ko sa borom subhanahu wa taala période bo xamni ak moment bo xamni jamono ju ne yalla sunu borom ci mbaxam ma nga fa te soxla yaangi ni bari aajo yi bari sunu bakar bari jege sunu borom ñu soxla ko te waxtu wo waxtu ci mën la mo da waxtu la bo xamni julit bi warna ci baril di ci jog guddi di ci jéggalu ak di ci julli bokku na ci di taxaw ci kanam borom bi subhanahu wa taala di ci def ay rak'a ndax julli gudi day jegeel borom bi subhanahu wa taala jambi bokku na ci di dimbali miskini ak fuqara wi ak ñi nga xam ni di len dimbali ci sutura ci sa alal di len dimbali ci sa man man ah lolu guddi la rafet ndax ci la ëpp sutura loolu julit bi warna na ko waajalee ku yàlla dimbali nga tane say mbokk nga fexe ba aajo yi ñuy war a aajowoo dem di ko wuti feneen yow nga féete leen fa ndax sunu yonente alayhi salaatu wasalaam nee na du xëy di fajal jaamu yàlla ab aajo lu dul ni yàlla sunu borom subhanahu wa taala dana la fajal yow say aajo yow ni nga toll yow nit ak ni nga néewee am-am ak sa katan ni mu newe nga xey ci aajob sa morom jullit nga fajal koko yalla ni mu reye ak ni mu magge ak lamu yor num dul jexé yalla xey yow ci saf tol ñaar yoy boko gam gam le da ngay xamni lu sore woo la ci katan ak men men ak am-am tayo jambi lo bari bari alal am ko la ëppale yalla nak kenn ëppale wu ko te du jexal te yow da ngay jexal nga gis sa mbokk julli bo xamni ñaari junni moy aajoom nga fajal ko ko yàlla fajal la say aajo yoo xam ne kenn xamul nangami junni lay doon moo tax ab jullit day geestu ñi mu tane di leen dimbali tey bañ a xool ñi ko tane du sant yàlla ci alalam tey du jaamu yàlla ci ñi nga xam ne ñoom ñoom la tane loolu ab jullit a ci bàyyi xel bu baax a baax bokk na ci li ñu waajale weer koor mooy an niyatu as sadiqa mooy yéene boo xam ni bu dëggu lay doon ndax jëf yi lu mu bari bari ak loo ko naw naw su yéene bi baaxul sunu borom tabaraka wa du ko nangu kon yéene bu rafet moo gën fuuf ay jëf yu bari ñu xam ni weeru koor buy taxaw dañ ko war a yéenal yéene gu rëy mooy fas yéene woor weer bi yépp ah ay acc bisimilah euh, kàddu yu ndaw rekk yoo xam ne imaam bëgg nañ ko wax ñu jottalil ko ngeen baal ñu ñu dagg waxtaan bi tuuti rek balaa waxtu wee jeex ñu jottalil